jëmbe ko ci mboolem ñi nga xam ne ñooy topp ndaje mii nga xam ne moo ñeenteelu colloque international bi nga xam ne ñi ngi koy def depuis 2011 ba léegi kon ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne tey mooy kilifa yoonu murid mi ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñëw nañ ànd ak moom ci lii nga xam ne fii àdduna si toll moo tax ñu doxale ko ni ñu ko doxale waaye ci kàttanu yàlla dafa mel ne sax ci niñ ko jàngate ren la gën a ëpp jeexit ci mboolem niñ ko daa organisé mboolem liñ ci daa séentu itam liñ ci gis ren ëpp na ko réew yu baree bari participer nañ ci ànd ko yoonu murut kon sëriñ bi nee na mi ngi gërëm ñëpp di ndokkeel ñëpp di tàmbalee nuyoo bi sant cant gi ak ngërëm gi nag ci comité organisation bi nga xam ne ñoo doon taxaw lii te ki nga xam ne mooy seen coordinateur ma teg ko ci seen kanam bi Serigne Ousmane Mbacké ba agsi ci commission culture ak communication bi nga xam ne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma moo ko jiite ba àgg ci euh, waa daairatu Rawdu Rayaahin bi nga xam ne ñoo saytu lii di ko taxaw ba mu agsi ànd ko Serigne Abdoul Ahad kon mboolem ñi ci nekkoon ñëpp ci turu sëriñ Ahmadul Badawi Mbàkke mi nga xam ne mooy seen kilifa ak mboolem ñu ngi ko àndal di nuyu nag suñu bokki bopp yu te yi fi teew te teewaal lañ ci des ñëpp te bokk ci majlisu suura bi nga xam ne biñ taxawalee comité bi ñoo ne ci kaw nekk ay kilifa di leen xalaatal di ànd ñoom ci liggéey bi yëpp te buñ ci tuddee sëriñ Cheikh Mbàkke sëriñ Mahmoudan Jobbe mi nga xam ne Cheikh Massamba maamam diggam ak sëriñ Touba ñëpp xam nañ taxawaay bi ci biir yoon wi tudd ci Cheikh Mouhamadou Bachir Mbacke ibnu Serigne Abdoul Khoudous mi nga xam ne maam ak Cheikh Ibrahima Faty moo nekkoon jëwriñu sëriñ Touba kon ñoom ñaar bu ñu xasee teew teewaale nañ ñëpp ak mboolem mbokk yi fi teew ci ñi nga xam ne ñooy mboolem Cheikh si bu buñ ñu tuddee Serigne Sidi Naar Jenn mi nga xam ne mi ngi nii toog te yàlla def li ñuy waxtaane tey jëfam ji bokk ci. li koy gën a màndargaal ngir ñu xam ne nekkut ay wax rek waaye ay jëf la juñ mën a teg bët kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm techniciens yi nga xam ne ñu doon taxaw li eh, wax nañ lool seen taxawaay ci sonn gi ñu sonn ci liggéey bi ngir mu tegu coon na waa université virtuelle di Sénégal bi nga xam ne wax nañ ne seen taxawaay fés na ci ak mboolem ñu ñu ko àndal ñëpp ak ci techniciens yi bàyyiwuñ kenn ak mboolem média bi yépp ñu ngi leen di sant leen gërëm ndax bu fekkente ne nee nañ ci barab bu toll nii ba nag mu tax ci àdduna seen liggéey tax kon ñu ngi sant ñëpp ak mboolem ñi nga xam ne nee nañ ci àdduna si ba noppi participer ci mi di rafetlu bu baax nag xalaat yu mel nii ndax fii àdduna toll natt bi fi suñu borom wàcce moo xam li tax mu wàcce ko fi waaye kon waroon nañ war nañoo fexe ba fu àdduna toll rek yoon wi di def ay mubaadaraat yoo xam ne lu ci ne day indi ay eh, solution ci fi àdduna si toll kon thème bi rek ñu jëmale ko ci alxidma xidma nag Sëriñ Tuba al abdul xadim daraam génn ko allamahum bi anna lil abdul xadim wax na ko fu bare bare al abdul xadim mooy jaam boo xam ne nanguur kenn moom ko ku dul boromam alxadim nag mooy koo xam ne léppam da ko jegle rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sëriñ Tuubaa léppam xidma la ko jàppe ndax boo demee ci li ma tagg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam xidma la moom léppam lu mu mas def rek xidma la ko jàppe kon loolu ñu war cee roy war cee jànge muy misaal mu rëy ci àdduna di loo xam ne itam yoonu murid fu mu àgg ak lu ko wërtaleeg beneen tarixa xidma la ndax Serigne tubaab bi mu dikkee dafay fekkoon ay tariixa yu baax yoo xam ne ay nit yàllaa ko sos Serigne bi ñëw fekk bi muy jàngataat lim fi fekkoon lépp da ko tënk ci alxuraan ak sunna Serigne Touba alxuraan ak sunna dara daraam génn ko li nga xam ne ñu baax ñu bàyyi woon nañu ko fi nag dafa toppaat lépp jàng ko dajale ko jël ko mu nekk almuridiya loolu nag almuridiya boobu nag la ci ëpp solo mooy xidma xidma fu yoon wi àgg tey mayees taa wax rek moo ko fa àggale ngir bañ a guddal nag ndax ñaari fan yépp ci li ñuy waxtaan kon luy firndeel njariñul xidma jëru del si ndax leer nañ ko te yoon wi bokk na ci li ko wërtaleeg lépp ci yeneen tarixa yi mooy ñi ci ëpp lañ daa wax def li ñuy wax théorie Sëriñ Tuubaa nag da ko pratiquer ñëpp jëfe ko mu nekk waaqi amal muus loolu mooy xidma bi nga xam ne Sëriñ Tuubaa def na ko te yoon yi di ko dund ba nëgëri muy loo xam ne itam mënees na si joxe firnde yu bari ginnaaw li li li taxoon jug liggéey bi muy tagg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ak athanau alallahi eh, kon la ca dolli ko waat mooy liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi te mooy xidma bi ñuy waxtaane bu ngeen fàttalikoo Serigne Touba ba muy woote jumaa njaarim ndénkaane yu am solo yam ca waxoon mooy xidma ba nëgëne kon xidma bu ñu koy wax jumaa njaarim lenn la ci xidma ci résultat boo xam ne luñ mën a wax la lu ne fàng lu ñëpp teg seen bët ci nekku sëriñ bi ak ñim ko àndaloo ñëpp ci yoon wi luñ mas di def di ko liggéeyal sëriñ Tuubaa loolu mooy xidma ginnaaw sëriñ Tuubaa itam bi sëriñ bi ñibbisee Tuubaa fu yoonu mas a àgg xidmaa ko fa àggee tàmbalee ko ci ci ko jëkk a wutu di ak Cheikh Mahoudou Moustapha mi nga xam ne yoon wi manis naa wax ne moo ko fondement ba tëral ko raay bi ba mu koy indi ba na mu ko santaani woon ci biir yoon wi tàmbalee ko ci ñi nga xam ne ay rakki sëriñ bi dañoo ak seex yi ku ne xam ne ku ci ne taxawaay ba mu ci na sëriñ Massamba maam Cheikh Ibra Fall ak mboolem seex su mag sépp kenn ku ci ne joxe ay nit loolu mooy ma ba tax raay bi mën a taxaw te raay bi kat xam ngeen ne Cheikh Mamadou Moustapha bi muy bëgg a sanc taxawal jumaa ji tubaab gàllankoor gi ñu ko bëggoon a gàllankoor mooy dañoo waxoon ne autorisation bi mu ñaan nañ ko ko may te xañ ko ko may ko ko mooy buñ ko ko gàntul ndax ndegam mi ngi maslaak ñun waaye nañ ko ko xañ ndax nañ teg condition yoo xam ne du ko mën a matal waaye suñu du sàcc dogg ko ak ma tax mu xam ne bu dogoor taalibe Sëriñ Tuubaa ànd ko moom ba tax mu réaliser ko ci diir bu gàtt ba àggu ci dele bañ ko waxoon ba fondement jumaay Tuubaa ba mu yëkkati ko ba mu bàyyi ko bàyyi ko rakam gi tedd ja Cheikh Mouhamadou Fadel moom itam ci xidma moo tax mu ànd ak taalibe Serigne Touba yépp song jumaa ji liggéey ko ba àgg ba mu inigré ko loolu mooy xidma ginnaaw itam Cheikh Abdoul Ahad li mu def ci dëkk bi lépp ci xidma la mooy yokk jumaa jeeg daari kaamil ak daara ji mu somboon ak yépp loolu mooy xidma ba ci Cheikh Abdoul Khadir diggante bi li muy gàtt gàtt xam nga ne waxuma la ci ay réalisation ci tabax waaye ku ne xam na ne ku ma saan jaaxle ci ordonnance ak ci moom ngay dem loolu xidma la Cheikh Saliou Mbacké toole xerkoom yii mu goroon di ci liggéeyloo ñëpp ngir bëgg xam ne ku la bëgg jariñ ci Sëriñ Tuubaa faaw mu liggéey loola ndax xam ngeen ne lam ca daa ñàkk ak lañ fa daa ñàkk daw dayu so baylu so noonu loolu mooy xidma ngir bëgg seen dara bañ a neen seen lépp delluwaat ci liggéey Sëriñ Tuubaa seen lépp delluwaat ci liggéey yàlla ginnaaw bi tam ñi leen fi wutu tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mboolem lu mu fi réalisé si jumaa jeeg ci dëkk bi ak tëli yi loolu lépp xidma la ginnaawam itam tam ak Cheikh Sidi Moukhtar xam ngeen somb yi mu fi def moom itam ci jumaay Touba yi ak jumaay Ndakaaru ja ak yeneen ba ci kër gi ñaari bâtiment yii loolu lépp xidma la ndax jëf la joo xam ne bàyyiwu ko fi ay njabootam bàyyi ko fi ngir ñu donn ko waaye lu fi sax lay doon loo xam ne ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa moom ko loolu mooy xidma kii fi nekk itam yàlla na fi yàgg te wér di ay Cheikh Mouhamadou Mountakha wane na moom dundam gépp ci xidma la ndax ku fi mas a nekkal Sëriñ Tuubaa kat da ko ànd ak yow lu mu am ak lu lu mu dajale jël lépp delloo ko ci xidma kon nag fii àdduna toll bu fekkente ne dañuy jàngataat ci thème bi nga xam ne joxe ngeen ko ngir xool li nga xa li nga xam ne xidma war na ko mën a jëriñ mooy dama ci joxe firnde ju gàtt ci liy xew mooy mbas mii am taxawaay taxawaay bi mu ci taxaw moom Cheikh Mouhamadou Mountakha ci fànn yépp nag ci jëmmam ak ci jëfam ak àllalam ak léppam ci ni muy soññ nit ñi ak yoo misaal bi muy joxe lépp loolu xidma la ak dundal gi mu doon dundal nit ñi di leen jàpp ne santaane ni li yunfiq zu saati min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu fa yunfiq ma ataahu llah loolu lépp xidma la kon nañ xam ne xidma dara lu baax génn ko kon waris na ci gën a góor rawatina mooy ba boo xam ne wërteem ci ñun waaye ñëpp ko war a roy te mel na ne itam ndax lu baax fukk nit gisee rek wóoru ko wóoru solo dafa mel ne yoonu murit dafa nekkoon seen màndarga nekk seen li nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy liy feeñ ci ñoom lépp ba tax fu ñu àgg ñu àgg fa alhamdulilahi rabbil alamin nag mel na ne ñëpp gis nañ ne yoonu baax la wax ne ñëpp a ngi leen ci kon nag loolu ñëpp ko war a war a ñëpp ci war a gën a ndegam nag yàlla def na fu ñu àgg moo tax ñu àgg fa war nañ ci gën a góorgóorlu dafa ci gën cee defaat yitte gën koo gëmaat gën a xam ne moo ñu mën a àggale fa jëm ci loolu itam ci mbas mi li Cheikh Mouhamadou Mountakha wane loolu dafa bokk ci résultat yi li nga xam ne moom ngeen doon waxtaane ndax bu fekkoon fekkonte ni Cheikh Mouhamadou Mountakha def àdduna sëpp def nañu kenn ku ci ne la ngay liggéey ba ci commerçant bi bu xamee ne bu yokkee marchandise am dana metti ci nit ñi mu wàññi ko loolu xidma la ki tane mbokkum jullitam ci quartier xam ne mën na ko dimbale mu dimbale ko loolu xidma la loolu bu ko ñëpp defee crise bi li muy métti métti adduna si dana delluwaat fa mu ne woon te alxuraan loolu santaane jullit day dimbale mbokkum jullitam kon loolu mooy ci tënk li nga xam ne mënoon nañ ko ci wax euh, muy loo xam ne adduna sépp ko war jariñoo muy misaal mu mu am solo ci Serigne Touba di misaal mu am solo ci yenn ak turuqu suufe yi nga xam ne ñi ngi jëfandikoo xidma ngir àgg fa jëm ba ci mboolem réew yu mag yi ñi nga xam ne lislaam li ñuy dund ku ci jiital xidma rek boo ko seetloo man ni si ñuy joxe misaal fu mel ni Turquie gis ngeen ci xidma dem nañ ba àgg ci fu sore sore ak yeneen réew yoo xam ne si ñuy joxe misaal yu bëree bëri kon ci tënk loolu bokk na ci li nga xam ne waris na ko cee mën a joxe misaal yoonu murit nag muy seen jom di seen fayda di seen fulla yoo xam ne ndegam dem nañ ci ba àgg ci fii waris naa fexe ba gën a laxasaayuwaat fexe ba gën a takkuwaat ba dëgër gën a jëm ca kanam ndax loolukat li ne ci suñ kanam ci ay sumb ak i taxaddiyaat bari na lool loolu nag lañ ci gën a mën a dimbale mooy fexe ba gën a góor góorgóorlu ci xidma xam ne mooy li fondement yoon bi ci loolu nag danaa ci wax lu baree bari ndax booy seet masaliku jaan xidma ko indi ba ci saal bii ñuy waxtaane fii tey sëriñ Sidi mii ma wax léegi kenn ci yoon wi di kenn ci kër maamu Cheikh Issa sëriñ bi sant ko mu jëf jëf ju toll nii loolu xidmaa ko mën a may ndax xidma ki koy def du ci séentu dara lu may payu yàlla mooy tax jëf jëf mu di ko la waaye bu fekkee yaa ngi ci séentu leneen rek xidma ba day daan des kon loolu ñëpp ko war a roy ñëpp ci war a ñëpp ko war a xool di di ko gën a bàyyi xel kii fi nekkal Serigne Touba nag di Cheikh Mahmoud Mountakha xam ngeen ni item itam jëpp xidma la ndax bi mu fi toogee wax na li gën a nekk sombam bi gën a rëy mooy université bi da gis ngeen jéegu yam ci def la muy dajale ci alal taalibe yëpp ànd ko moom ndax jëf jikkee li muy yaatu yaat bu ko taalibe yi àndutoon moom yoonu wut kon liñ mën dañ ko mën kon fu doole yoon wi àgg dajaloo taalibe yi ak seenu dégg ndigal def wenn say di diglu sëriñ bi moo tax doole jaman ak fi loolu nag kon sëriñ bi mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ba ci biir loolu rek am na ci jëf joo xam ne bokk na ci li ko itteel lool loo xam ne mays naa wax ne ndam la ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax loo xam ne ci Serigne Touba la tàmbali yoon mot mu mottali ko ci xilaafam loolu tawfeex ju rëy la ba ci jëkk mooy albuqaatul mubaaraka gi ci njaareem di pàkk bi nga xam ne Serigne Touba moo ko jëndoon ci alali boppam ci xaalisu ngordo tudde ka tudde ko albuqaatu mubaaraka muy njariñ foofa yàlla def na cheikh Mouhamadou Mountakha ci yitte ji ak gis-gis bu sooy bi mu ñaanoon ci fi ci jiite réew mi tey di président Macky Sall ne ko damaa bëgg titre foncier ñu defaral ma ko titre foncier def ko ci turu Sëriñ Tuubaa yàlla def na keroog bi fi président di ñëw la yëkkati titre foncier njaarim boobu nga xam ne mooy kër gu mag jox ko cheikh Mouhamadou Mountakha ne ko képp ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa yaa moom titre foncier bi ñu def ko. muy ndam lu rëy rëyati tàbbi ci biir xidma bu ñaareel ba it mooy istaatu mbàkke bii nga xam ne foofa wàllu yàlla yu mag ñoo tëdd ci wet ga tàmbalee ci Maamoor Jaar borom saam nga xam ne ku ko gën a jege borom am na mag mu baax mu daa wax ne Sëriñ Tuubaa day leneen waaye borom saam bi ak ragal yàlla ak bu baax ak xam-xam ci moom la fële tëdd sëriñ bu Bousso mi nga xam ne itam ñëpp dégg ne Cheikh Abdoul Ahad seere leer na si Sëriñ Tuubaa moo waxoon ne boroom jamono la kooku itam ko nitu yàlla ay doomi Sëriñ Tuubaa yu tëdd fa ba nopp ñu sësali ko stade Cheikh Mouhamadou Mountakha ci yitte ji ak xalaat bu bi demal fa boppam daaw ba mu jugee njaaram yàlla def ci feex nag maire bi ab Mbacke Ndaw di jarbaatam ànd kook sëriñ bi ba yàlla def ñu jox ko sëriñ bi ginnaaw bi itam sëriñ bi sàkku ci ki jiite réew mi di président Macky Sall mu defata ko titre foncier moom itam ñaari yëpp àgg na ba keraw bi muy ñëw ci sëñ bi jébbal na ko ñaari titre foncier loolu lépp nañ ci xidma la ndax sëriñ bi loolu lépp bu koy def lam ci jublu mooy bëgg yoon yu gën a ñoŋ ak gën a jëm ci kanam ngir xam ne kuy tabaxal loo xam ne ay téeméeri at la war a jëm war ngay bàyyi xel lu ne ni ko Cheikh Saliou Mbacké defoon ci titre foncier Touba bi kon loolu di ay mandarga yu rëy yoo xam ne waris naa tax ñu gën a takk gën a góorgóorlu ba bu ngeen xoolee ci bu yàggut bi nga xam nawet baa ngi jóg bi bi bi nga xamee ne mbas maa ngi dugg sëriñ bi santaane wax digle ñëpp taalib yëpp ànd ci ak moom kon loolu muy loo xam ne ñëpp ci war a jàngate ji gën ci góorlu ngir mën a jëm ci kanam mu nekk nag tajriba boo xam ne adduna sépp ko war a kon nag ngir jeexal ndax wax ji gudd na te kilifa yi mu fi jiitoon li ma toon wax lépp wax nañ ko dañuy santaat ñëpp di gërëm ñëpp di santaat commission culture communication bi nga xam ne ñoo taxawal lii ndax lépp kat bu baaxee ba mën a rafet nii seen taxawaay ak seen yitte ak seen pëstéef ak seen xalaat bu sori moo tax bu may déglu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm suñu mbokk yu tëdd yi fi ñëw ànd ko ñun jotaay bi yàgg na te xam na ni borom responsabilité yu mag lañ ay kilifa lañ fañ nekk waaye lépp ñu bàyyi ko ngir ànd ak ñun ci liggéey bi xam ne li ñuy def ñoom ñoom ñoo ko bokk. di sant yàlla ci ñoom bu baax baax nag ndax li Serigne Touba ñaanoon ci xoqa wax ne wa rufqatun wa hiya ixwanun lahum imamun maal wafai bi sidqin fi l uxuwaat yàlla def na ko suñu diggante kon nag wa nasana ma fi sudurihim min xilin ixwanan yàlla defal nañu ko yàlla sax ca mboolem bokk julli ci àdduna si yëpp bokk ko yàlla def wàcc jàmm ci àdduna mboolem yi fitna ak i xeex ak i jar yàlla dax ko mu jeex balaa bi nga xam ne suñ borom moo ko fi wàcce te moo xam la tax mu wàcc ko fi suñ borom ni mu ko fi indee mu génnewaat ko tam bañ a bàyyi benn jeexit tam bañ a dellusiwaat wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu kon mbokk yi miskul xitaam mooy kàddu yi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Bachir doon jottali muy kàddu yu rafet di kàddu soññee di kàddu yoo xam ne tax na sunu xel gën a dal ñoo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko yàlla doole sàmm ba lépp lu mu yéene mu yeggale ko yow itam yen bi mu la yen euh, te mu gann gan sunu borom sàmm la téeñal la ba lépp loo ci yéene nga def ko nu kawe sa njort te nu ànd ko ak yow ahsanallahu ilaykum kon mbokk yi na ñépp tàllal Cheikh Bachir ñaan su ko defee ñu mën a yewiku ba ëllëg ak jàmm allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaat